xarit bu jomba ñaaw ñaawul bi sama garaam daam bii macha allah tubaab fakàlla macha allah ñëw xam nga mu dalal ñu këram wax dëgg yàlla dara jafewu fi yombalal nañu yëpp recevoir ñu xam nga moom lañ seet si woon fii waa seen info 8 TV nogoy ñoo la seet si woon fas yéene laa dalal ci seen info 8 TV ñu fas yéene waxtaane ci mbirum laabaan waaw loolu la ñuy waxtaane waaw auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani mu soxna Aram maa ngi lay ziyaara di la nuyu di la fay di la jox sa wàccuwaay maa lay sant di la gërëm waaw ndax tamit koñ bi rëy na nga taamu ma fi jël ma pour ñu waxtaan si laabaan dinaa si sawar tamit sawar naa si trop lool nag mbirum laabaan moom sawar naa tontu lat si mm-hmm. pour ñu waxtaan si bisimilah maa lay déglu. léegi maanaam Nogaye sunu jamonoy tey jii maanaam ci li ñuy indiwaat ci mu jëm ci mbirum laabaan mm-hmm. ndax booy xool ca jamonoy maam ya mm-hmm. laabaan nam daan amee ak léegi mm-hmm. daa mel ni dafa xaw a dëgg la waaw ma di la ci laaj <coughs> dëgg la soxna Aram bu njëkk daa mel ni nit ñi léegi dañoo dañoo bëgg a fàtte démb te démb dafa baax di fàttaliku waaw toog ba mu yàgg fàttaliku démb bu baax na laabaan bu njëkk ak bu tey bokkul te laabaan daa nekkoon loo ni nii suñuy maam suñuy yaay dañ koo amaloon dafa amoon solo dañ koo farataaloon mais léegi xale jigéen ñi xamatuñ sax lan mooy laabaan dañ koy fawee sax instant bi laabaan bu njëkk boo déggee ne may nañ diw li ñuy njëkk préparé mooy ay laabaan ja la ñu sunu maam yi indi sunuy géwél juddu ñu ñëw tàgg la waay la def ambiance bu neex daal muy lu neex léegi nag xale yi léegi xamatuñ sax lan mooy laabaan ndax xamuñ njëriñ bi si ne sax day gis ku si am jëkkër mu dem yóbbu ko hôtel doo xam si lu mu nekk doo xam si dara wala mu yóbbu ko xetam wala këram te bu njëkk laabaan buñ la mayee jëkkër dangay toog si sa biir néegu yaay sa bàjjen mooy ñëw waajal la préparé la ak sa yaay ñu waajal la ba nga jekk mhm. boo tëddee fajar ñu yee sa bàjjen woo daal di woo sa yaay ne ko sama xol sedd na guy kontaan naa jël lañuy jël jox ko sa yaay mu daal la ko njege naayal sa bàjjen ñu yëkkati la sang la ba nga set woo ñëpp ñu sar xole tàcc yuuxu ñëpp ñëw seetaan si ñëpp xam ne kii kat tey ji tëdd na laabaan mais léegi laabaan amatul ndax léegi dañ ko ñàkkal fayda daal waaw te lu am solo la nag lu am importance la laabaan lu am solo la lu am importance ndax suñuy maam suñuy yaay ñun ñëpp fa lañ mais léegi daal farataaluñ ko farataalatuñ ko xamul lu tax. maanaam doguma la sax. Mhm. soxna Nogaye maanaam mhm. laabaan. Mhm. valeur bi valeur la valeur laabaan laa xale yu jigéen ñi xamatul léegi xamatuñ ko rek. ndax liñ naan fa ndox daan taaba tey boo fa demee fekk fa tepp tepp. dëgg la xam nga dëgg la ndax yow. bu fekkente ne dañ laa may ci farakas yàlla ak sunu suñu xamee. li yoon mooy nga toog sa kër yaay xaar fa sa borom kër. si gis say say waajur. waaw si gis sa famille. dëgg la waaye defatuñ ko. defatuñ ko léegi yow loolu loo ci xam. ah man de instant yi moom xale jigéen ñi damaa waar moo tax dangay gis ku si takk xale problème bi am yëpp looloo ko indi ndax buñ toogoon ba jëkkër ñëw fekk la sa néegu yaay takk la laabaan ji moo am solo ndax góor bu ñëwee fekk si yow fekk si yow lépp. Mhm. da jox cër. jox la sa gëdd waaw xam yow yaay kan mais léegi gis nga jigéen ñi moo tax gis nga léegi xale yu góor yi ku si takk jabar doo ko nawloo doo ko faale ndax la nga yaakaaroon ci moom fekk ko fa moo tax lu am solo yow émission bi nga def ni sax aram xamoo ko émission bu am solo mooy laabaan bi dañoo war a dellu cosaan fàttaliku démb xale jigéen ñu téye seen sër yi téye seen tànk yi toog seen pooju ndey yi ba góor gu baax ñëw fekk la fa waa waaye instant yii loolu amatut tan nag lu lu am importance la lu am solo la lu am solo solo la mais léegi jàppatuñ sax ndax léegi ñoom jànk laabaan am na sax léegi ñoom xamatuñ sax ndax laabaan am na wala maanaam loolu man mhm. li ma ci xaw a jaaxal mooy mhm. li tax léegi ñu néewal ko amatul mhm. maanaam ci éducation bi la wala ci yarin bi la wala wala ci ndey yi nga xamante ni dañoo bëgg lu yomb ndax am na ci ndey yoo xamante ni dañuy bëgg ngay dem di leen indil xaalis di leen jëndal sandis di leen jox dëgg la loolu moom ma la ciy laaj ba xam ci ndey yi la wala ci xale jigéen yi loolu yëpp li nga wax dëgg la loolu ba tey ci maanaam éducation bi la rek éducation bi la mhm. ndax bu njëkk yow ñi may woo dem génn ñëw indi xaalis mhm. wan ko sa yaay amoo fitam sax yow dem génn ñëw indi xaalis wan ko sa yaay amoo woon fitam da ngay ragal man xaalis bi ma yor su ma ko ne sama yaay man maa jural ay conséquences yu bari. ndax danaan ma foo ko jëlee. mais léegi day gis ko yor xaalis bu weex tàll ñu di defal sa yaay la loogu. te xëyoo gontoo te du lijjanti foo jëlee na xaalis mais bu njëkk ñi ma woo yor sax 1000 francs ñëwoon ko sa yaay ndax danaan boo demee góor ñi ñoo la ko may. Mhm. te boo demee mën nañ laa saay saaye te wóorul mais léegi da ngay yor xaalis bu weex tàll sa yaay du foo ko jëlee ak foo ko amee. noo ko amee baax na. bu njëkk yow ñi may woo sax taxawal góor si mbedd añu di la gis mhm. amoo fi dem ndax danga naan kon su ma amee jëkkër dañ naan man damaa foye sama bopp si àll ba ku ne da doon sóoraale sa bisu laabaan chaque jour yaa ngi sóoraale sa bisu laabaan mais léegi daal man xale yi xam nga rek mooy ba par nag éducation bi dafa des des na éducation bi des na bu li ma ca gënoon a neex mooy suñ la mësaan a maye mhm. ba nga tëdd ba tàkkusaan jot ah. sa morom yëpp xale jigéen ñi nga xam ne ñooy say génération mm-hmm. ñëpp dañuy ñëw toog ñu togg mbaxal waaw di tëgg di fekk xam nga loolu dafa amoon te dafa bu neex la waaw waaw la waaw léegi nag loolu yëpp dañ koo ñàkkal fayda amatul dëgg la li xew ci réew mi moom léegi moom doy na waar torop mm-hmm. dëgg la dëgg la doy na waar soxna aram doy na waa lool ndax bu njëkk waa bu njëkk maa ngi fàttaliku waaw boo tëddee mm-hmm. dañuy ñëw togg añ tëgg waaw wayal la sargal la sar xoolel la bu ngoonee xale jigéen daje togg mbaxal juróom-ñetti fan yi encore dañuy ñëwaat defaan mbaxal ñu ñëw defaan mbaxal waa loolu daal xam naa ne moom éducation bi moom war nañ see xolaat daal xale yi éducation daal ñu dugal seen bopp yi xam naa daal éducation bu njëkk ak léegi moom bokkul daal bokkul moom war nañ see xoolaat nag bu baax a baax waaye nag leen a ngi ci fa ndox daan taa ba tey boo fa demee fekk fa teeb. dëgg la dëgg la dëgg la waaw ndax xaj na am na ñu ko ñàkkal fayda waaye ba tey am na ñoo xam ne dañ koy def. waaw dëgg la. moom njëkk ni mu daan ni nga daan defee chaque jour mbaa boo toogee fan ñaari fan ba ko ñetteel nga dégg njiinu fajar. amatul amatul sax léegi sonaaram amatul. waaw amatul wala bu amee tamit rarement lay doon. yàlla mu nekk nag loo xamante ni lu doy waar ci jamono ji. ci génération bi nga xamante ni ñooy bëgg a ñëw ak ña ñëwagul. dëgg la waaw. waaye boo seetloo génération boobu noonu. Mhm. ba tey moo gën génération bi ndax gis nga yi am nii bu lii bu njëkk amul woon yow bu njëkk ba ngay gis ku am jëkkër bañ laabaanal la ah da ngay so booy jug jugaale ëmb macha allah dara doo si am benn problème te doo si am dara mais xoola instant bi da ngay gis ku ëmb yàlla mu yàlla jéggal. avortement yaa ngi fi nga jur doom doom ji kenn du xam nu mel. te loolu lépp fañ koy defee ji la doomu mhm. maanaam fañ koy defee ji. loolu la lu doy waar doy na waar na waar trop trop instant yi moom xanaa moom ñun daal xam naa surtout nag ñun ñi yaay yi war nañoo jugaat ku jàppale njaboot gi ak xale yi ndax xale xamul dara ñun ñoo war a góorgóorlu jàppale suñu doom yi yar leen def ci ñoom éducation boo xam ne la maam yi doon def ak yaay yi ñun ñu jéem a sol suñu dàll roy si yaay yi ak maam yi def si xale éducation boobu daal am na solo trop trop trop trop ndax laabaan dafa baax. dafa baax dafa baax trop dafa am importance waa société bi laabaan dañ ko war a indiwaat. dañ ko war a indiwaat laabaan daa war a ñëwaat. waa ndax cosaan la laabaan cosaan la. comme ni làmb yi ñuy def làmb yeeg yooyu laabaan cosaan la. cosaan la cosaan laabaan dafa bokk si sunu aada. te tamit soxna li ma ci gën a jaaxal. Mm-hmm. man leen tamit gën a jaaxal na ma trop. waaw léegi xale jigéen ñi kuñ ci maye. ñu dégg la ci auberge yi wala ci hôtel yi. waaw loolu tam jaaxal na ma. dëgg la moo tax liy am di am rek li ma la ko moo tax liy am di am ndax yow yaa ngi sa kër ndey ak sa kër baay ñu yor la ba nga ne léegi may la borom kër. waaw dangaa war a toog ba sa jëkkër fekk la biir kër ga daagu ñëw. sa biir kër ñu togg reer dañ doon togg reer bu neex ñu xam ne sa jëkkër ñëw na. mais léegi hôtel ñuy dem auberge yi. di ah. dem fu ne moo tax liy am di am. moo tax liy am di am rek. lii am ni bu njëkk amul woon. amul woon lii am ni bu njëkk amul te loolu lépp lii ko indi. waaw fu ne ngay dem yoo xamoo fa ngay dem loo fay dajanteel loo fay gis loo fay def xamoo góor ga ngay taseel ban façon nit la waaw mi ngi noonu mi ngi noonu moom daa xam naa la instant yi war nañoo xoolaat suñu bopp bu baax ñun ñun mère de famille yi mhm. yar xale yi yar leen si jub ak si diine ak lislaam leen àdduna xam ñu wax leen fi ñu teg seen tànk ndax jigéen carrière jigéen yàggul carrière jigéen dafa gàtt te jigéen loo def ba fooyee sabab sa àll bi moo da yow moom perte nga waaw moo tax laabaan dafa am solo mm-hmm. laabaan dafa am solo dafa am njëriñ nañ delloo si xel yi mm-hmm. def laabaan ju mm-hmm. neex suñu mbokki géwél yi ñëw laabaan tëgg way dafa neex cosaan la daal maanaam cosaan la waaw maanaam daal culturel la dafa baax dafa baax ndax xam nga ne sa yaay ji la nga xamante dala am juróom ñeent waaw fukkeel xaw waaw waaw macha allah. nekk ak ay ay nawleem ci mm, biir kër gi moo xam mu jëm la moo xam ay mujju peccorgoom la xam nga ay nawleem ci koñ bi xam nga mm. sa yaay jooju la jur waaw bu sañoon nga sigil ko ci ay nawleem waaw waaye daal doy na waar doy waar boo xam ne loolu yëpp nag xaas bi rek moo ko waral aram xaas bi rek xaas bi doo ko waral mais daal xam naa ne moom war nañoo xoolaat suñu bopp bu baax a baax a baax yar xale yi suñu éducation bu baax ba delloo si laabaan mm-hmm. laabaan dafa am solo laabaan dafa baax laabaan dafa bokk ci démb ak tey na mën nañ see jàpp bu baax a baax ci yee si xale yi delloo si laabaan laabaan lu am solo la dafa am importance daal daa bokk si ñun. am na importance daa bokk si ñun lu baax la lu baax na waar daal suñu jamono tey daal moom man mu ngoog mu saay naax saay. xaw nu ma ko mën a waxee. ndax saay lu am solo nag lañ bëgg a xeewil. dëgg la lu am solo lañ bëgg a. lu am njëriñ lu am njëriñ dafa bokk ci ñun. Mhm. lu am njëriñ lu am importance dafa bokk ci ñun ndax loo xamante ni sa jëkkër ji bu ñëwee bu ko fekkee ci yow dalay respecté ba abadan. alaa yu mu diini kay. xale jigéen damaa yaakaar loolu sax xanaa dañ cee xamul dara wala la. xamuñ si dara sax billaay seen bëgg-bëgg rek ak seen bànneex kese ak bon. waaw yàlla na yàlla jéggal xam nga rek oh, xale yi mooy loolu dañu bëgg xaas nangu ñoo liggéey. waaw bëgg nañu xaas liggéey. boo bëggee xaas nag te liggéey te sa mm-hmm. yaay tamit maanaam du la. bëgg jàppale bëgg na xaalis nanguwul nga dem soññ liggéey mm. mooy loolu rek loolu rek moo fi indi li yëpp aram loolu rek moo ko fi indi kay loolu léegi moo ko fi indi. amiin amiin yàlla baax na nañuy nañ si soñ nañuy nañuy lii rek soññu xale yi rek. Mm-hmm. di waxtaan ak xale yi. Mm-hmm. di wax ak ñoom chaque jour lii nii lii nee mais tamit xale yi di bokk dul boo boo du toog ak moom. Mm-hmm. di waxtaan ak moom du xam àdduna du xam dara macha allah. waaye de ah lu am solo de moom lu bokk ci ñun laabaan dafa bokk ci ñun. aada la laabaan aada la day suñ aada maanaam de suñ aada waaw aada ak cosaan la dafa baax daal li ma ci gën a jaaxal nag mooy ndax euh, xale mhm. ca ba muy nekk xale bi mu nekkee xale bu tuuti nga ko mhm. war a commencé jubbanti ndax ku ne dégg na bant bu tooy danga ko ci nga ko mën a ci tooyaay bi nga koy jubbante mhm. ba mu jub waaye boo bàyyee mu toll ni yow nga bëgg koo jubbanti loolu du mën a nekk dootoo ko mun ndax éducation ba ma ngay commencé ca ba mu nekkee xale waaw ndax yow bu fekkente da ngaa yor sa doom mu yor am ay juróom-ñetti at fukki at di commencé sol ay sufees ay kiloot yu gàtt ay min doo ko ne doo ko ne li nga sol baaxul doo ko ne xoolal nit ñi nga romb ci mbedd mi xam na déedéet léegi loolu yow man li ma lay laaj loolu est-ce que xale mën nga ko ci mën ngaa bàyyi sa doom ci ci ci ci ci yar bu bon boobu noonu mu bëgg a màgg war a mën a. munta ne munta ne soxna Aram munta ne. waaw munta ne ndax xale moom li nga ko toqantal rek. waaw ba màgg ci si loolu rek lay yaakaar loolu mooy dëgg te day yaakaar ni loolu loolu moo baax moo tax li la wax moo tax xale boo koy yar da nga koy yar si lu si loo xam ne nii lii mooy dëgg mais solee lu gàtt ne ko wàññeeku mu ngoog bu njëkk yow ñeme woo sol yéen sol te romb ay ay kilifa mais léegi xale dañuy sol loo xam ne sax maar day taal yi bu njëkk bu du woon sa doom sax bu doo doomu jàmbur am nga droit ne ko simi ji mais léegi ñeme woo ko léegi ñeme woo ko xam naa daal éducation bu njëkk ak na waar waaye xam naa laabaan moom war nañ koo delloo si am na ci am a baax am na ci yaay yoo xam ne nag moom liñ naan fa ndox daan taaba tey boo fa fekk fa tepp tepp am na yoo xam ne moom nday ya kilifa yu diiñ lañ dañoo mm, diiñ dëgg la seen place dëgg la seen doom du def naka sudul noonu seen mm-hmm. doom du sol col bu bu mm, xalaatuñ ko sax waaye am na ci yaay yoo xam ne na ma yàlla baal te jëkkër ma soo génnee ña ngay séentu sandis boo leen jëndal waaw dëgg la de bu xëyee ne la loo yor tey waaw jënd jëndal sa bopp dégg waaw xam nga boo yoree foofu jox ma ah, dara munta ne munta ne ah, munta ne dafa doy na waar munta ne munta ne xale da nga koy gëmloo gëmal sa bopp takkal sa sër ba mu dëgër bu njëkk xale yi def nañ xale yi def nañ waaye am na ci côté boo xam ne parents yi dañ def nañ ci waajur yi la koy waajur yi la ah. waajur xale yi am na ci wet goo xam ne parents yi def nañ ci dëgg la dëgg la dëgg la ndax sama doom ji bu ma ko yoree ci biir kër gi buy mhm, génn mhm. sol col gu bon bu ma ko nee duggaatal day duggaat du ma ci bañ dara nag moo gën waaw loolu la boo ñàkkee du ma ci bañ dara waaye boo ko bàyyee noonu mu génn loolu est-ce que dina mujj waaye bu fekkee da ngay kilifa goo xam ne nii dangaa bëgg xaalis danga naan kat dama bëgg mu mer moo tax dama ko wax yenn yi mm. ndax su ma ko waxee loolu la te bu njëkk nag bañoo si sax mu mer nga dóor ko wala lépp ndax yow yaay kilifaam mm-hmm. danga kaa war def éducation boo un exemple daal mm-hmm. waaye léegi loolu amatul te léegi nag bu njëkk loolu mu amoon sa ah, kilifa moom sa kilifa la lu mu lax da koy def mais léegi da nga yaakaar boo xee sa doom sax mu mer sax yow da ngay da ngay waaw loolu baaxul. danga naan mi ngi noonu <laughs> yàlla baal waaw am na ci borom kër yoo xam ne dañoo ragal yaay yi. waaw ba duñ ñemee éduquer seen doom. doom duñ ko ñemee dara. waaw duñ ko ñemee dara nañ jaar ca digg seen doom yi dañuy bàyyi rek bàyyee seen yaay yi. mu ngoog xale yi su ko defee. bu dee yaay ju bëgg xaas ju mel ni. duñ ñemee wax dara say juuf. duñ ñemee wax dara. di xaar sandi su xa min wi mbaa sandi su. maa la ko wax xam nga wala ngay xaar ngeen a yàlla jéggal daal li yëpp daal xaalis la ko waral rek. xaalis la rek rek mais xam naa daal. macha allah yal na yàlla defal cat loolu ñu sutura. amiin amiin may ñu wér ak wér sant naa la gërëm naa la wax dëgg yàlla aw ma aw ma sa fay bu baax gërëm naa la. tàggatoo ndax waxtu bi dañoo xoj. waaw na waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jiital nag sant bi nag. maa ngi si jiital borom kër gi sama nijaay Alaaji Mor maa ngi koy sant di ko di ko gërëm di ko ziyaar di wàcc ndax yëpp moo ma wax dëgg yàlla yor na ma suturaal na ma yor na sama njaboot bi sant sama taaw bis kër gi muy Modou Ngom mhm. si si baasin xadi ñoom ñoom Issa Modou maa ngi sant ñëpp gërëm ñëpp sama doom yi Pape Diop Ablaye Faye ñëpp sant naa ñëpp gërëm ñëpp daal ñëpp maay seen yaay man man man maay yaay xale yëpp mhm. macha allah yàlla ñaan defal jàmm ak salaam euh, maay ñaanal tamit télé bi yàlla jëm ci kanam dem ba nekk ay télé télé télé si barkeb Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa salaam yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def maa ngi sant ñëpp gërëm ñëpp. jërëjëf yow tamit ñu lay jaajëfal. wax dëgg yàlla ndax dangaa nekk ci koñ wax dëgg yàlla doon nday di seex. dëgg rek. dëgg la na la yàlla defal jàmm. defal la ci kër gi lu kawe sa njort ak seen info 8 TV nag moo fi ñëwoon di jomba ñaawul ñaawul bii sama xaritu xol waaw. sant nañ la gërëm nañ la waaw dëgg yàlla dara jafeloo ñu ko ñoo ko bokk ñoo ko bokk yow benn lañ yow bokk nday yow yërëmande lañ benn la ziyaar naa ñëpp ku bàyyiwuma kenn waa seen info ca kaw ca kanam amin waaye jërëjëf